numéro 2 Mourou Sabala nee na lewaatoo ñoom ñaar Drago 2 Mourou Sabala Mourou Sabala ak Drago numéro 2 premier combat de la soirée Jax moo ñu woo dimanche 13 février ginnaaw bu ci tikkee jox Jax Liss Ndiago ñi ngay encouragé di félicité Tapha Mbeur Drago 2 ak Mourou Sabala Touré Drago 2 ak Modou Sabala Drago 2 ak Modou Sabala dara amagut Drago 2 ak Modou Sabala Modou Sabala door na jël na Modou Sabala Drago jël na Modou Sabala Drago 2 Modou Sabala dara amagul de Drago 2 Mourou Sabar jël na ko takk na ko wéyal na ko eh jëri Mourou Sabar la takku Sabar la bii 24 la bëgg ndaanaan la Mourou Sabar jël na la daan na Mourou Sabar daan na Drago 2 huit fee yàggul de Drago daan na eh Mourou Sabar la tëj na réew mi yow day barke daan na ko jëlee bu rëy ndeysaan ñoom ñaar lépp moo la féetee càmmoñ liiru mu ngor moo la féetee ndijoor moment bi ñaari mbër yi nekkee ci digg géew bi la Serigne Ndiaye dee di dugg si ci stade bi ndeysaan làmb ji mbokk yi semi de nocturne la ngeen xamee ko noonu ñu noonu ci làmb ji ndeysaan liiru bu ngor moo la féetee ndijoor lépp moo la féetee càmmoñ liiru cokkaas na lépp sàmmal ma sa tànk yi Lirou jëm sa tànk yi jël na tànk ba jël na tànk ba quatre appuis am na quatre appuis am na lépp daan na ko lépp daan na Lirou lépp daan na lépp daan na Lirou lépp daan na. arbitre bi waaj a sifflé troisième combat de la soirée Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh moo la féete ginnaaw ngemboo ngemb yu ñuul nekk écurie booy Pikine Boy Niang ah Doudou top 5 mu ngi nekk écurie Doudou Baka Sarr ndeysaan moo la woon moom ngeen jàkkaarlool moom top 5 Ngor Ñaax moo la woon ginnaaw lii nag bëre dóor la ñoom ñaar ñëpp ay mbër xamante ne ay mbëru simple lañ Ngor Ñaax ndeysaan Ngor Ñaax top 5. Ngor Niakh top 5 ñu ngi bi Ngor Niakh di bëre ak top 5 ci la Cobra di tuus ah wala nañ koo xoolaat ndax bëggoon nañoo am tuusu Cobra grand combat bi Ngor Niakh top 5. Ngor Ñaax top 5 ndeysaan Ngor a ngi déplacé wu arbitre bi bi nee na laale leen arbitre bi nee na laale leen Ngor Ñaax ak top 5 Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh moo la woon ginnaaw top 5 moom ngeen jàkkaarloo arbitre bi àtte na kaay leen da ngeen a war a bëre waaw waaw da ngeen a war a bëre da ngeen laale da ngeen a laale waaw waaw arbitre bi sifflé waat na ndeysaan Ngor top 5 Ngor Niakh moo la woon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li mbokk top 5 moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan xale ngi xale yaa ngi noonu dara xewagul ba tey ci ngóor ñaax top 5 cokaas na ngóor ñaax déplacé na tànk bi daa mel ni tànk bi mu teg pour bëree mënu koo xeexee moom ngóor ñaax changé na pied ngóor ñaax changé na pied avertissement Ngor Niakh avertissement top 5 ayca laale leen ayca laale leen laale baaxu góor la Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh top 5 joloma père Ibrahima Mbaye ci xaar fa xul fay ay butéel la yor ak studio moom père Ibrahima Ngor Niakh top 5 dara xewagul Ngor Niakh top 5 Ngor lan moo nar a xew Ngor Niakh top 5. top 5. top na. daaw jëli ko. daaw jëli ko. Ngor takk na ko. Ngor takk na ko. top 5 bañ na ah top 5 mi mbër la ah. top 5 mbër la ah. ndaanaan la ma ngay xeex. ma ngay dóor. top 5 dóor na ko. dóor na ko mbaa daanu. top 5 dafa wax Ngor daan na ko. top 5 dóor na ko. waaye Ngor daan na Ngor ñaax daan na top 5 Ngor ñaax daan na top 5 Ngor ñaax daan na top 5. ak Ndiol Jamono ndeysaan ñu ngi noonu Ndiol Jamono taxaw na fi mu taxawaatoon mooy càmmoñ Sakel de taxaw na fi mu taxawaatoon mooy ndijoor dem nañ arde ba ñëwaat Sakel Ndiol Jamono Sakel Sakel duraan na. ndeysaan Sakal dóoraan na kubu dal Ndiol a ngay fayu Sakal Ndiol Sakal Ndiol dóor na ñooy xeex dóor daa bëgg bëre Sakal daa bañ Sakal dee ak Ndiol jamono Ndiol fàqat na ko Sakal bañ na Sakal bañ na Ndiol Diamono Sakal Ndiol Diamono ak Sakal sakkal Diamono Sakal ñoom ñaar a ngi noonu Ndiol Jamono Sakal jàppante nañ dara xewagul Ndiol Jamono Sakal Ndiol Jamono Sakal Ndiol Jamono sàkkal jamono sàkkal njool jamono sàkkal njool jamono sàkkal njool jamono sàkkal ñu ngi jàppante ba tey dara xewagul njool Ndiol Diamono Sakal lan moo a xew Ndiol Diamono Sakal daan na ko daan na ko Sakal daan na Ndiol Diamono Sakal daan na lam yi looloo yàgg ki ma amoon fuut moo mën a am ci daa daanu li mu ñàkk a tey daa daanu tey mënu woon ñàkk a bañ a daan tey moom laa doon bëre waale li mu tey kaa doomu daanu mu metti ma loolu ma dama bëre waale loolu Sarkar lan moo tax combat bi yàgg billaay wala dama sonn ah dama sonn ci combat billaay ma dama jël jël sama daan ma waxaa ma def kanam ma daan maa ko doole billaay walaay ñoo naa ñëw billaay wa dama sonn dama dëggal ñaari deux défaite ñaama doo mbër Liss Ndiago daanu tey suñu kii tey man tey day métti waruma daanu tey billaay wallaay taa waruma daanu tey day métti waruma daanu ba xam ne tey fii laa ko doon gar Liss daa ñàkk te du yoon. billaay nga jëm foo jëm. waaw instant daan na kii ñaari combat la xam nga seen combat la Tapha Mbeur laa soxla nañ ma ko jox Tapha Mbeur dañ ma bari naa am bëre Ama bu Ngoundiane Amady Badiane Ama bu Ngoundiane moo ngem boo ngem bu rose bi takk sanga bu weex bi ci dënd bi Amady Badiane moo ngem boo ngem bu vax bi xale yaa ngi lewaatoo ñoom ñaar Amady Badiane Ama bu Ngoundiane ama bu Ngunjaan Amady Badiane ama bu Ngunjaan moo takk sangaw bi ci dënd bi Amady Badiane la nu jàkkaar lool ama bu Ngunjaan Amady Badiane lewaatoo ba bar Ama bu Ngunjaan Amady Badiane Ama bëre ñu xeex nañu Amady Bayane door na moo ngi koy plaqué Amady Bayane plaqué na ko Ama bu Ama bu Ngunjaan Amady Badiane lewaatoo ba bar na Ama mëb na léegi waaye demul ee eh, xeex na ñamadi Badiane jël na ko moo ngi koy forcé takk na ko mbot na ko Ama bu daan na Amady Badiane Ama Ama bu Ngoudiane daan na ko nekkee ëf ëf bu dóore rond point case ba ngay dali arbitre bi sifflé na ndeysaan Caatu Maalaw ak Ibo Ibo ikiru Mbay Fall Caatu Maalaw ikiru Grand Yoff ndeysaan kii féete la kii féete la ndijoor Ndeysaan Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Maalaw Ibo bu Kër Mbay Faal moo la féete càmmoñ jiital tànk càmmoñ Caatu Maalaw moo la féete ndijoor jiital ñoom ñaar ku ci nekk léewtoo bi baax na de boo xoolee léewtoo Ibo baax na de Caatu Malaw nag mbëru simple la Ibo mbëru simple la bu rax dóor macha allah ñoom ñaari xale ay bërekat lañ ay xeexkat lañ ndaysaan ndeysaan door na te boo tuuse na ko door dal Caatu Malo Ibo Ibo macha allah na taxawaay bi na Caatu Malo garde bi mu dugalee coup mu dugalaat gis nga Caatu Malo garde bi des na cokkaas na. Ibo Caatu Malaw Ibo dóoraat na Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Caatu Malaw na wala daa dese coup bi Ibo moo doon door mu remis ko Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw arbitre bi sifflé na woon na ñaari mbëri waxaat na arbitre sifflé waat na Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Maalaw ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw drapeau Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw daw na jëlu ko Ibo na ko Ibo jëlu na xew Ibo Thiatou Malaw Ibo xew Caatu Malaw bañ na Ibo ngi bëgg a tànte Caatu Malaw yottu na tànk bi Ibo bañ na xale yi Kër Masar ñu ngi ne teg Ibo Caatu Malaw gisuma waa Grand Yoff waa yëngu wuñu xar na ko xar na ko takk bi baax na takk bi baax na takk bi baax na Ibo daan na ko wala déet Ibo daan na ko doomu kër Mbaye Fall bi daan na waaw waaw Ibo daan na la ilaha bu rëy ko daan Caatu Malaw da koo takk yéegu ko fu sori daan ko jël bu amul benn werante la ilaha illallah nuyu naa la. maa ngi lay fay fiis. nu ngeen waajee tey. waaw li lamb ji laajee boo gisee tey bis bi nga xam ne bisu xale yi la lambu xale la malgré que guddee na mais lii moo leen Sénégal ñun lamb rek lu ñu am donc na état bi jóg autorité jóg jàppale lamb parce que handball bi tey amul fay mënoon nañ ko yóbbu feneen bàyyi lamb ji continuer kon depuis 9 heures ñëpp ñibbi nañu mais lii moo leen Sénégal lamb lu ñu am. ñun ñu stade bi est que du stade handball ndax stade bi moom ñoo ko mais Watgal ak Yégo ñun xam nañ ne moomuñu ko mais bi xamee ne gratuite la. te lamb ji promoteur bi sonn na ci mbër yi sonn nañ ci nañ waxtaan rek nekkal comme ñoom dañ koy def parce que boo xam ne amul fay ñu dem université wala ñu école de police même bu laajee promoteur bi lu leen dolli ñu def ko seen kees loolu lépp jàppalante rek la loolu wàññiwul dara. lan ngeen indee boo gisee Serigne Ndiaye 2 tey ni mu duggee gis combat ni mu duggee nga xam ne ñaari xale ku ne nekk ku ne tey jël nga décision ne maay moom ndam li mais nag suñu gis nañ ko ci moom te xam na ne wan nañu ko bu soobee yàlla suñu borom dina ko may dem ci xeex wala bëre non tey bëre ba ëpp na xeex bi ragal parce bu ñu bu ñu ko kooree rek bëre am combat bi mujj fii la mujjee bëre daa dóor mu daanu moom Serigne Ndiaye tey mën nañoo séntu mu dóor Cobra non tey bëre sax la war a def nag waa ji moom war a fay mais Serigne dafa war a bëre jàpp daan ñi bi jaajëf père ndeysaan diggante Gandia Fama ak Bébé Darou Gandia Fama igiri parcelle mbooloo la nekk ndeysaan Bébé Darou jàmm gën si kàmbaaw la nekk Gandia Fama moo la féete càmmoñ Bébé Darou moo la ndijoor Bébé Darou moo prolonge moo sut Gandia Fama moo xaw a gàtt Gandia Fama Bébé Daaru Bébé Daaru door na ndeysaan cokkaasaan na Gandia Fama moytul moytul bu Gandia Fama Bébé Daaru mën na laa door daanu soo daanoo xeex bi relance bi loxo yi dafa jóg Gandia Fama Bébé Daaru Bébé Daaru moytul tànk bi Gandia Fama daa bëgg jàpp mayul Bébé Daaru moytul ndeysaan Bébé Daaru Gandia Fama Gandia Fama Bébé Daaru Gandia Fama Daaru ndeysaan Bébé daw na jëli ko daan daan daan na daan kay da daan daa mën a bëre Gandia Fama daa mën ndeysaan waa parcelle la ngi noonu ndeysaan waa parcelle la ngi noonu ndeysaan Gandia Fama ngi noonu yëkkati na nee na ko jugal oh làmb gi Gandia Fama daan na Bébé Daaru waaw champion c'est de yaa woo tamit maa la wax Père Pala maa lay nuyu maa lay fay maa yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu baax waajalee Cobra tey mu fas yéene ñëw bëreeg Serigne Ndiaye 2. waaw xam nga waajal nañu ko comme ni ñu ko daan waajale rek combat challenge la ñaari xale lañ yoo xamante ni làmb moo leen boole. Euh, li ñu ko war a def yëpp wax nañ ko ko li ñu war a def ak moom def nañ ko. li ci des nag moom mooy mu appliqué li mu war def parce que kay bërekat simple la te lii bëre dóor la kon boo privilégié bagaar bi mën naa mu ëpp sens. que muy nangu di bëreeg moom li traditionnel su privilégié bagaar bi départ euh, mën na am dara ci waa ji yooyu yëpp nag wax nañ ko ko mi koy bàyyi xel li ci des mooy ñaanal ko pour yàlla may ko ndam daal. da ngeen koy yab mu indi ko pour mu xeexal Serigne Ndiaye. waaw parce que fii nu toll nii bagaar moo ko gën a gaaw a génne ci combat bi kon il faut mu xeex doo ko bëre. kon combat bi séntu ngeen ci dóor mu daanu. kaaw mën na ci am. Euh, déparé ko bëre xeex jeexale ko bëre mën na ci am. maa lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf. jëlal Gandia Fama le grand champion doomu bidante bi. loolu xam nga la daal maa ngi lay wër. mais kii pour nga xaar pour may massage. man yëpp maa ngi lay wër. maa ngi lay wër. kaay sama yaram daa tàng de. dama bañ ndax yow. Moussa Dioum nañ ko maye yow laay xaar ñetti at ak ni ma lay wër amaat bi ma jox ma bañ ko man li ngay li ngay def amul sens. da nga war a may sens. seen jaaboore ñi nga war a bëri dañu koy bàyyi da nga war a may sens. kii Moussa Dioum moo moom dik amul loo may amul loo may jaay amul loo may jaay. damay bañ damay bañ police yi police. amul loo may jaay. loolu dinaa ko tontu kii dinaa ko tontu. kii dinaa ko tontu bu dee ñeme nga dinaa ko tontu. amul loo may jaay. boo ñëwee ñu may ko. Moussa Diop. duñ ko doon Moussa Diop. duñ ko doon Moussa Diop. ma koy échouffé. ndeysaan. ma koy def réveil de musculaire. di yee tëri. pour ñu yeewu pour que mu mën a am li mu moom Cobra doomu Pikine bi ndaysaan gisuñu ko woon xamuñu ci lan nekk waaye mu ngi noonu Cobra ndaysaan Cobra ngi noonu ma nga noonu eh lamb ji du yomb tey kaay dox ci diggante ordinateur ak Adama da takk der bee ko dóor épaule bu doon man la bu yàgg tontu na ma <laughs> jërëjëf ordinateur ak Bruno ndaysaan sama xel dem na ci Bruno Messi ndaysaan ordinateur ikiri booy ñaa nekk Bruno mu ngi nekk ikiri barñi lu xew nee na ko fëggal suuf bi at bi sifle waat na Birima moo la woon ginnaaw ordinateur nga jàkkaar lool bëre dóor la ordinateur mbëru simple la su doon maa Birima damay daas samay loxo ba mu ñaw mën a dóor mën a bëre ordinateur Birima ordinateur Birima ordinateur Birima Birima dóor na Cokkaas na dooraat na Birima dooraat na war woon jàppante Ordi jàpp na ndaysaan Ordi jàpp na léegi mu jeex léegi mu jeex ordinateur Bruno luy xew lan mooy xew Bruno ordinateur a ngay fay waa ordinateur a ngi dóor ci suuf na da koy daan da Ordu da koy daan na ordinateur daan na ordinateur daan na ordinateur daan na ordinateur daan na ordinateur daan na naa la. waaye sëy naa fay naa la bu baax a baax. gis nga doon def face to yaa fëgg la bu nga. waaw gis nga bu ñu ñëwoon tey pour pour engrais rek. man ak Feugueleu bu Ngor le 3 avril incha allah. wàccaay li foo toll. waaw gis nga ñu ngi si kawam bu baax a baax di ànd ak ñi ñu a ay Boldo Tamsir Lampal sëñ waa dëkk Marbat waa Daaru Cubi waa Cambérène waa Touba Bentali ñu ngi waaj bu baax a ak sam papa. sa ñeme na la de. ragal la day sóob rek. lii fii simbeere simbukat la. moom. simbukat la li muy def fii lay yem de mais buñ bi ba arbitre mën ak des. man maay décider lu ma. loo koy loo koy waajal. waaw xanaa bi ma jaar ak ay moromam rek li ma mëne dama koy dem si kàttanu borom bi di wax sama doomu yaa dafa am combat Valdo bu Cambérène di wax waa Cambérène yëpp ñu jël le 19 jàppale ko yàlla may ko ndam di ñaanal serpent tamit yàlla may ko ndam di féliciter Paul bu Daaru di féliciter Talfa di ñaanal waa Daaru ci bu yëpp yàlla nañ am jàmm waa Cambérène maa ngi bëggee bu baax a baax di bëggee Kouloukoum. di gërëm sam papa sam papa maa ngi koy gërëm bu baax a baax day sonn si man billaahi te dafa dépa fu muy fu muy jëlee xaar di ñu ko jox a dimbali sañu di nuyu sama yaay sama tànda bu baax a baax a baax di nuyu waa kër Pell Ali An Ama Demba Kaara Mbay loolu 45 papa sama mag day jël xaalis bu bëri di ma ko jox waa Arlem bool Kajoor gi Dames xeer bi forom ci kanam ogo ogo yi waa dëgg bi bu ma limee damay juum waa Gédiga waa Harlem di wax sama mafia bi Baye Fall ñoom Sam Ziz Sori ñoom ñëpp nañu waaj le 3 avril ku yéex doo dugg di sant Guiro Seras bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di wax Cambérène le ku yéex fi doo dugg damay bloqué stade bi si kàttanu borom bi. kontaan delloo siyaar bu wér a wér. jaaraama tool waaw siyaar naa la. wala fan nga toll fan nga toll ci wàcc man maa ci wàccaay rek maa ci wàccaay di waajal le mars di ci woo waa Cameroun yëpp di leen wax ne am na combat na ñëpp teew ñu jàpp waa ñu duma ko daan ko ci kàttanu yàlla. baax na kontaan naa ci waaw yow ñoo far gànnaar di ñaanal sama bi nag fu ndam Feugeuleu di nga wax li muy li muy li muy xeej di woowu ko Feugeuleu bu ngor li muy xàññ adversaire yi mu doon bëri ak benn kii xale la kii xale moomin la la ñu wax xale xamul dara. kii mooy suñu lépp kii suñu rakk la suñu lépp bu ñu déggal kii bu amee combat dañuy jël suñu lépp suñu temps yi bàyyi ko si moom da ci kàttanu yàlla dina am ndam incha allah kontaan naa ci waaw jaay Aïcha grand combat baa ngi noonu dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 Fass Cobra Pikine Mbolo Serigne Ndiaye 2 moo la féete ndi joor ngembol ngemb lu verte li senghor yu cruise arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 13 février deux mille vingt na jëli ko Cobra na jëli ko jëli na ko daan na Cobra Serigne daan na Cobra Serigne daan na Cobra daan daan na ko oh, combat bi dafa gaaw Cobra daanu na jël bu mu ngi jooy Adama Serigne Ndiaye ngi jooy Serigne Ndiaye ngay jooy ndeysaan ma ngay jooy ndeysaan ndeysaan mu ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy Serigne Ndiaye ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy mu ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy ndeysaan Serigne Ndiaye ngay jooy Adama ma jooy am ndam ba di jooy nag ñàkkul am na lu mu ngi jooy moom Serigne Ndiaye boobu Fass ma ngay jooy ndeysaan ma ngay jooy ndeysaan kaay Adama kaay Daba Doki nuyu naa tey di nga wax mosuma laa jël nga wax xanaa du wax kii nga wax waxal nañ ko. merci beaucoup mon père jeex moo indi Serigne Ndiaye tey bu faas. mbokk yi ñu leen di bu baax. di wax ni lamba ngi noonu. Serigne Ndiaye tey bëre na Cobra daan ko jël bu amul benn warante. mbokk yi di leen leen ci defal jàngat. waaye da ngeen di dem suba incha allah rabbi ci wasaare lamb ngeen tàppe ba jàngat lamb Baye Djily dina leen ci waxal ci ñu gis ci lamb ji gis nañ beneen Serigne Ndiaye deux gis nañ keneen ku mën a indiwaat beneen relève ci face waaye Cobra démérité woo da ngaa perte repère c'est normal da ngaa gëj a bëre depuis sa combat ba léegi bëre woo c'est def nga erreur ci combat bi mu daal la ñu ngi lay di félicité Serigne Ndiaye de mbokk yi di leen jox dig daje ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu la am jërë ngeen